jamiyati taawunu alal birri wa taqwa ñooñu ñoo gis ne lii xew ci réseaux sociaux yi adduna bi yëpp di avion yoo xam ne ñi ngi jóg dinaaw di dóor ay jigéen ak ay xale yu ndaw ca Palestine adduna bi yëpp di ko seetaan te Mawlana Cheikhul Islam mosu koo seetaan ñoom ñu am yëg-yëg boobu ñëw ci xalifa bi ñaan ko ndigal ne ko dañoo bëgg a ñaawlu lii nga xam ne mooy am ci kaw Palestine e, te Israël di ko def sëriñ bi ne leen seen yëg-yëg bi rafet na maa ngi koy rafetlu waaye defin bi il faut ma modifier leen ko du ngeen dox ci mbedd yi di yëkkati ay xeer ak di yuuxu loolu fajut dara ay ndongo daara ngeen dem leen fi nga xam ne fi la ko bàyyi daan defee ca terminam ba ngeen jàng fa alquran ñaanal seeni bokk waa Palestine ñaanal leen nasr yàlla may leen dimbal su ko defee yàlla may leen dimbal loo xam ne danañ ci jotee seen suuf yi jotee ci Quds boobu nga xam ne mooy war a nekk capitalu Palestine te moom la sax mu nekk ko ba dappet Israël yàlla not ko teg ko li nga xam ne lii mooy jecc ba mu bàyyi lii muy def loolu nag moom la ndaw ñi euh, doon def tey man nag fekk maa ngi toog sëriñ bi joxoñ na ma ne ma oustaz Baye dana ànd ak yéen def xutba bi ci arab xutba boobu moom laa def léegi euh, yaakaar naa ne am na ñoo xam ne jot nañ ko dañu wax ne bismillah euh, bismillah والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد بن عبد الله فأما بعد عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تستنكر وتدين بقوة شباب جمعية تعاون على البر والتقوى في مدينة الشيخ إبراهيم نياس بالسنغال الاعتداءات الوحشية التي تمارسه دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني ظلما وعدوانا وذلك بإذن من خليفة خليفة صاحب الفيضة التجانية فضيلة الشيخ محمد الماعي إبراهيم نياس الذي كان والده رضي الله عنه المناصر الأول والمؤيد الأقوى للشعب الفلسطيني منذ أن عاهد الزعيم الفلسطيني القوي الحاج أمين حسيني على مناصرة فلسطين zalika fi binan am 1937 wa hahum shababu madinatikum ya maulana cheikh lislam haaj ibrahim fi sanat 2011 yaqifuuna nafsa mawqifi cheikhihim wa qaa'idihim wa bi iznin min khalifatikum muhammad mahi ibrahim Niass yansuruuna wa yu'ayyiduuna bi quwwa الشعب الفلسطيني الأبي ويدعون لهم نصر لهم نصرا عزيزا تتحرر من خلاله جميع أراضيهم المحتلة بما فيها القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة كما يستنكر ويدين شباب المدينة بقوة جميع الدول المساندة لإسرائيل التي تخترق أمام أعينهم جميع قرارات أمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وفي النهاية يدعو شباب المدينة مدينة الشيخ إبراهيم نياس بالسنغال يدعون الله تبارك وتعالى أن ينصر الفلسطينيين عموما على إسرائيل وأهل غزة والحماس على وجه الخصوص حتى يتحقق على أيدي أبطالهم الشجعان قوله تعالى في حق بني إسرائيل وإستأذن ربك ليبعثن على ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب gannaaw ñu sante yàlla julli ci yonent bi dañuy wax ne ñi ngi jëfee hadis yonent bi sallallahu alayhi sallam bi wax ne ku gis ci yéen lu ñaaw loo xam ne yàlla ak bi daf koo bañ ak gor goo xam ne da ngay bañ ku ko gis na ko na ko dindi ak loxoom su ko mënul na ko dindi ak làmmiñam su ko mënul mu ñaaw la ko ci xolom looloo gën a néew ci jëfi ku gëm yàlla gis loo xam ne lu ñaaw la ndaw ñi nga xam ne nag ñooy ndaw jamiyatu taawunu alal birri wa taqwa fii ci Medina Baye di ay waxambaane yoo xam ne yaru cheikhul islam doo dugg na ci seen biir biñ gisee avion yi naaw di rey jigéen ñeeg ndaw ñi ak xale yi di door hôpital yi ca Palestine te réew yu bëri ci yaram bëri doole di joxe ngànnaay yi ba pare di dimbali Israël loolu métti leen ñu ñëw ci xalifa bi jàmbat ko ne ko ñun dañoo bëgg a wane suñ méttit ak suñ naqat ñaanal Palestine ñaanal yàlla may ko ndam mu ne leen d'accord naa ci li ngeen def noonu la loolu mooy yëg-yëgab jullit bu baax surtout ndaw yu mel ni yen di suivre li xew ci àdduna bi waaye defin bi dama bëgg ngeen modifier ko du taxaw di yuuxu ak sànni ak xaacu di wër mbedd yi waaye dem leen fi ko bàyyi daan defee ngeen jàng fa alquran gannaaw ay ndongo ci ëpp ngeen ñaanal yàlla Palestine ñaanal yàlla ñi ci faatu ñaanal yàlla ndam Palestine ci kaw Israël ñaanal ko mu am ndam loo xam ne dana goreel boolem suufam yi nga xam ne Israël daf ko occupé boole ci Quds mu nekk capital boo xam ne capitalu dappet lay doon ilaa yawmal qiyaamati ñeel Palestine ñu wax nag ne ñi ngi ñaawlu ñoom ndaw ñooñu di jamiyatu taawanu alal birri wa taqwa ñi ngi ñaawlu taxawaayu mboolem réew yi ci àdduna bi nga xam ne ñoo jox Israël ngànnaay seetaan muy def lii muy def te ñoom ñëpp décision buñ jël ci mbootaayu xeetu àdduna bi gis nañ ci mu aju ci àqi Palestine gis nañ ne Israël daf koy xëtt te kenn waxu ko luy ñuul ci we loolu li muy def lii itam ñu janoog moom noppi nee na ñi ngi ñaawlu taxawaayu mboolem réew yooyu di dimbali Israël ci nooneel gi te itam ci fin bi ñi ngi ñaanal ya fa sëppar Palestine ndam ci kaw Israël di jagleel nag ñi nga xam ne ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk ci ligne rouge di waa Hamas ak seen jàmbaar yi fàkk tëdd yooyu di ñaan yàlla dëggal ci seen loxo lii aay ji wax ne yàlla dana yónni ci yéen waa bani Israël ñoo xam ne danañ leen mosol mbugal moo xam ne moo elloog yéen elloog seen tooñ te loolu daf fiy nekk di continuer ba ilaa yowmal qiyaama te loolu ci la Hamas nekk ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko ci yàlla dimbale enfin ñu ngi gërëm kalifa bi ci ndigal li ak encadrement bi mu leen booleet di dërëm média bi yëpp di wax ne lii benn tokk-tokk la ci ndaw yi nekk Medina Baye ndax Medina Baye bu yëngoo ci niveau ba nga xam ne mooy niveau ba gën a kowe su boobaa àdduna bi yëpp dana yëngu ndax lim amee ci ay topp fii ba Trinidad fii ba Singapore bu yëngoo ñëpp yëngu waaye ndaw ñoo xam ne dañuy jéem di commencé xalifa bi encouragé leen ne leen nii la loolu mooy li doon am tey wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw mais ndaw ji mooy euh, euh, éducation de base rek ndax lii éducation la ba xam ne bàyyee ko fi defoon ñun ñii ba ñuy ndaw lañ ko daan dégg ci kaw minbar bi muy taxaw di ñaanal Palestine di rëbb Israël te loolu taxawaayu baay boobu mu defoon 1937 ba nim fi jógee moo tax bi fi Kadhafi ñëwee wax nañ ko ko nee na ko soo gisee euh, Palestine njëkk a am li nga xam ne mooy ambassade ci biir Afrique taxawaayu cheikhul islam haaj ibrahim dafa nekkoon ca bopp ba loolu nag ndaw ñi buñ ko gisee mooy lépp loo xam ne dëgg la ñu ànd ci lu dowut dëgg ñu won ko gannaaw teñ commencé ko ci biir kër yi commencé ko ci seen jikko yi commencé ko ci mbedd mi commencé ko ci réew mi am comportement boo xam ne comme ni leen xalifa bi wax duut kum neex ñu ooleen ngeen toj ngeen damm ñu rey ci ñenn loolu dafa nekk di loo xam ne du éducation cheikhul islam haaj ndax xeexloowu ma kenn jàpp leen seen kurus tey wirdu bu leen dingaayoo lu ñu leen waxit na leen neex ngi Sidi Barham ndax bu tere ngeen am li ngeen bëgg àdduna bi yëpp ànd ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullah